j'allais dire monsieur l'adjoint au sous-préfet wa Tamba ñu ngi lay nuyu barki dembu euh, je puis assurer à toute la population de Nyahar que c'est une très grande chance que tu sois parmi nous j'ai reçu les témoignages de par les collègues de par certaines populations qui t'ont connu dans la pratique au lycée Mam Cheikh Mbaye de Tamba donc euh, alhamdulillah, Hirabil alamin Dalalak jam Nyahar jigla te nga monsieur le maire mako di nuyu madame seen Soumayoum Paye mi nga xamante ne nag moom nag moo tax xew bi am tey euh, di koy féliciter au passage dinaa ñëwaat ci moom di nuyu les responsables politiques yi fi teew yëpp di nuyu nag euh, population ñaaxar yëpp rawatina suñu yaay yi nag parce que tey moom képp kuy wax na nga wax nag ci yaay ndax aussi xele yi ñoo xewle tout tànk yi te tout tànk yi ñun ñëpp jaar nañ ci yaay yi la donc di leen di félicité bu baax loo maman ndax doom bu juddoo ba toll fi ñu toll ba suñu xel demaat ci tout tànk yi nga xamante ne dañuy bëgg a jaar fi ñu jaar a maanaam euh, delloo leen njukkal war na donc yal na leen yàlla fay yal na yàlla wéral cër yi te yal na yàlla barkeel aussi njaboot gi parce que loolu rek euh, lañ fi am ci àddina benn affaire rek laa bëgg a xamal askan bi gis nga ma Macodou Sène mii ci moom laay njëkk wax dama bëgg a wax tuuti ci différence am ak leader politique yu bëri ci biir senegal duma wax ñaaxar kese nit di nga juddoo ci dëkk màggee ci dëkk yàlla dénk la nga mën nga am nga mën a def am loo defee te doo ko yéene sa askan gis nañ ñoo xam dañu jang beraw am alal dem dakaru jënd fa kër wala bok ñu dem fenen ne parce que suma ma suma dekk dañ may ray dem yi dañ may ray dañ may lekk ñun gis nañ ko et puis dans le passé récent lolu mo fi amone mais il a ouvert la porte à toute la jeunesse par son engagement maanaam takkuteem ci ñaaxat jëm kanam contre vents et marées kon li yeb buy am moom la moom ak madame mi nga xamante su amon candidat bo xam ne posé wu na man mawar war ko salil carte man ak le mouvement je suis sénégalais je m'engage madame sen lay doon waaw su nekkoon candidate à la mairie de ñaaxar j'allais trahir mon oncle parce que xamee lu Judo judoo ci yomb mais nous, nous, nous, est-ce que li muy def ñaaxar ñun dañ koy def les Bontin, né et grandi à Dakar, ayant épousé Makodou Sen, le campagnard, mu nangoo au taxaw au-delà de tout ce qu'elle fait mu ne man ñaaxar laa bokk ci deret ak ci dëkkuwaay Kokou dafa fort kon madame Sen, boo posé un candidat man dama lay votel kon Makodou mënul am suma carte mais heureusement pas <laughs> candidat mais vous êtes à côté du candidat et vous travaillez pour le candidat pour le bénéfice de toute la population de Niakhar wax je dama ko bëgg a ci parce que tey euh, kii nii équipe qui bi li ma ngeen xam administrateur civil manam suis ni gérer préfecture gouverneur en tout cas qui goxaan yi ci réew administration mon expert le ci loolu c'est un administrateur civil de classe exceptionnelle mu nekk koo xam ne nag dafa un mandat di waajal deuxième mandat di def lépp lépp lo xam ne ñëpp a ngi koy coow mu ne nag la ma ba ñëpp di koy coow am lo xam bëgg ay expertise plurielle yu ma wër pour lo xam rek askanu commune de Niakhar soxla nañ ko ñu mën am un expert bo xam ne koy toucher du doigt boo xoolee équipe am na ñoo xam ne ci wàllu gérer xaalis ak banque ci Sénégal ci ñi gën a xereñ ci ñu leen bokk je peux nommer Birama Ndungu Ndiaye boo xoolee ci ñoo xam ne monter projet ak développer ko Sénégal dem kanam Makodou am na ko ci équipe am je veux nommer Pape mon frère boo xoolee ñi nga xam ñuy gérer ressources humaines maanaam. structure nan lañuy doxale structure bi ci askan bi fay liggéey ak walu bi ci équipe bi pour le prochain mandat je veux nommer Ousmane Diouf de Nyanyan. mais so xolé walu éducation aussi Makodou, ah, mais il est très intelligent il est entouré d'experts en éducation je veux nommer Souley Diouf mon grand frère qui est proviseur je veux nommer Mambiram Sen qui est formateur au CRFP de Fatigue je veux nommer ma modeste personne qui suis inspecteur de l'enseignement li may wax nag lu ma xam la ndax moom loolu la ci wut mooy bu ñuy pàcc pàcc wax ci développement kaka xam wax ci lo xam dara dara dara munu ko dindi lu dul science loolu la ci xam suñu mam yi fi en milieu séeréer dama leen naw la première fois que j'ai lu ça bi ma ko njëkkee découvrir affaire bobu suñu mam yu séeréer yi toujours dañuy wax sen goro boy nampal sa dom bul di joy ndax rongogn bi bu dalé ci kawam baxul ci mom c'était intuitif mais c'est scientifique vous savez pourquoi parce que le regard de l'enfant de un mois jusqu'à quatre mois ci dundam voire six mois la le champ visuel c'est de 25 cm té bon naté nattee xélé bi buy namp ak fi muy xol yaay ji ci bëtam c'est 25 cm. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. 25 cm nga koy nampal moulay lay yow rek la parce que gis bi dépassé 25 centimètres ngay joy, muy gis di ngay gis mu gis kanam di di grave mu gis ngay souffrir dang impacté ci amam dang koy impacté ci psychologie bu ku Elion du mu wala muy jamaate wala muy reyaate wala muy def naka sa dul noonu ñu ne donc à cette période les mamans il faut faire très attention c'est très simple kon bu ko defee li yëpp pour wax lan pour wax ne Makodou a beaucoup fait dans la commune mais le prochain mandat chère population de Niakhar c'est un mandat d'expertise pour le vrai développement de Niakhar et moi j'en fais partie le mouvement Je suis sénégalais je m'engage j'allais dire le mouvement je suis Nyaharoua, je m'engage pour le contexte le deuxième mandat de Makoudou, ce sera vraiment le mandat de la confirmation du développement de notre commune et un développement définitif car à l'issue de ce deuxième mandat le nom de Makoudou devra être lié à jamais à l'histoire de notre commune je vous remercie beaucoup merci